Kaolack euh, ñeenti doomu aadama ñoo ci ñàkk seeni bakkan benn camion gros porteur moo yegg ci benn euh, ci benn taxi urbain kenn moo ci mucc ñu yóbbu ko l'hôpital yëf yaa ngi amee ci wetu rond point cœur de ville bu Kaolack sapeur pompier yi nag euh, daal dinañ andi seen jumtukaay bu am solo ngir mën a dindi li di camion bi ci kaw taxi bi daañu ci dellusiwaat ak sunu ndaw bu ñu toogal foofu ci Kaolack di pap Mbaye Diaw et wax ci euh, taw yi nga xamante ne wadd na ni demb ci euh, ngoon ba tey ci suba ay gox yu bëri nag daal dinañ inondé ca Kër Massar situation bu doy waar lañ fa nemmeeku ci suba rek askan waa ngi woon ci biir ndox ma seen kër ya fees dell ki ndox ñu ànd ceeg kii di Mamadou Oumar Ba mu ñu fa defaloon reportage. këru Ndiaye boo ko xoolee bu baax ndox bi daf ko wër. bon en fait euh, moi j'ai pas bougé parce que j'ai la. moo man dew ma parce que dama yëkkati kër gi ma dëkk ci kaw waaye rez de bi moom dafa fees dell ak ndox depuis le juin nag état. Touba defoon na ay promesse ne dina installé ay tuyaux waaye ba léegi forage daal di daanaka dañ nax daal. de la poudre aux yeux on n'a rien vu. ni nu mel lañ doon dund te taw démb bi dafa gën a aggraver situation bi buñ sukkandikoo ci moom. la pluie d'hier disons n'a fait qu'aggraver. taw démb bi yokk na problème waaye lii daan nañ ko dund ndoxu taw daaw yi ba tey ñoo fi nekk. ndox bi atteindre na niveau boo xam ni jéggi na dayoo te lii nii daanaka kenn mënu ci dund. donc ce qui est pratiquement invivable. Euh, Abdoulaye moom day joxoñ baaraamu tuuma autorité yi. yàgg nañ ko dund parce que ñoom seen wàllu bopp monsieur le maire Moustapha Mbengue ñëw na fi plusieurs fois ñëw xool fi gis ndox mi saa yi ñëwee xool day dem yoonam ne dina wut ay moyens dina wut moyens mais boobu ba léegi mu ngi nii. mais depuis boobu ba léegi gisuñu dara et ñoom seen travaux yi fu ñu ko démarré. mais fii lañ ko waroon démarrer travaux yi ñoom fu ñu gas ay ay canal fii la ñu waroon démarrer ba pare doog a wàcc mu dem fële. luy mat ay fanweeri kër seeni boroom génn nañ fa ñeneen ñi bëgg nañ def ni nu mel waaye nee nañ amuñu moyen yi. jërëjëf Mamadou Oumar Ba wax ci pandémie coronavirus ba fàttati nag ay doomu aadama fii ci Sénégal fukk ñetti doomu aadama kon faatu nañ ci niki demb ci Sénégal donte nag contamination yu bees yi ñoo ngi ñoo ngi wéy di wàññeeku 286 cas de contamination yu lañu la ñu am niki demb ci 3497 tests yi nga xamante ne def nañ ko 57 cas grave ñoo ngi ci réanimation. un million cent cinq mille personnes ñoo vacciné wu ci fii ci Sénégal depuis bi ñu tàmbalee lii di vaccination bi kon ci mois de février dem ba ci bitim réew wax ci feebaru ébola mi feeñ ci réewum Côte d'Ivoire patient bi nag jóge woon ci réewum Guinée moo tax ñaari réew yi di Côte d'Ivoire ak Guinée ñoo ngi lëkkaloo donc di waajal une réponse conjointe lu mat cinq mille doses de vaccin daañu jóge kon ci réewum Guinée yóbbu leen Côte Côte d'Ivoire ci capitale ba di Abidjan fii ci Sénégal nag kilifa yi di kilifa yi kër docteur bi ñoo ngi def seen kéemtulaay kattan ngir nag feebar boobule bañ a dugg si ci biir réew mi ndax buñu ñu sukkandikoo ci kii di directeur de la prévention ci ministère de la santé euh, surveillance bi daañu ko gën a renforcer fi nga xamante ne moom mooy aéroport euh, Blaise Diagne jërëjëf mbokk yi li ay tënk la woon ci